Youssou Ndour à Bruxelles Youssou Ndour à Bruxelles le 27 juillet Youssou au Palais 12 Euh, le 29 defe naa mooy. Euh, dimanche bi incha allah ca théâtre national Daniel Sorano. Mhm. Euh, Fallou Ngom ñu ngi lay nuyu. Mhm. di grande nuit sargal Serigne Modou Kara ak sant Serigne Touba. Mhm. di programme bu am solo boo xamee ni taalibe yëpp a ngi koy waaj ba tey ndaw ñi rek. ndaw ñi rek ndaw yi Tidiane yi ndaw yi Mouride yi ndaw yi Laayeen yi ndaw yi Ñaseen yi ñëpp taxaw rek ñun ñu bokk yoon muy fa yàlla. donc ñu ngi jëm dimanche incha allah ci guddi gu am solo. ca théâtre national Daniel Sorano waaw. salaamaaleykum la ñuy wax di leen nuyu di leen ziara euh, di jiital ci nuyoo bi itam euh, oustaz euh, Pape Makumba Anne mm-hmm. ndax itam wa atubbi taala abwaabiha te itam tey day bisub àjjuma mhm. te moom muy koo xam ni euh, kilifa la ci ñun mhm. euh, ndax itam rakkam yàlla mhm. dafa def ñu ñu jaxasoo vert bi joxu la <laughs> <laughs> waaw gis nga adduna <laughs> ah, ngi waaw ma ngoog ma ah. di ah, la di ko ziara euh, di la ziar yow itam di ziar soxna Mariane ak soxna Modou ak sama ñaari soppe yi nga xam ni itam ñun ñoo bokk ñoo bokk mbir yi Euh, di am mbégte bu baax a baax ci teew bi nga xamante ni tey teew nañ ko ci seen biir. Mhm. di ziar d' abord ñi nga xam ni itam ñooy sunu ay kilifa. Mhm. Euh, di ci jiital Serigne Modou Kara ni nga ko tuddee léegi. Mhm. ndax yàlla def na muy sunu wasila. Ah. di sunu kilifa. doon koo xamante ni wax dëgg yàlla euh, ku am ay taxawaay la ci ñun. te am ko itam ci taalibe yëpp. waaye di ziar sunu ay jur muy sama wayjur wu góor Serigne Mbaye Ngom Ridial ak sama yaay Soxna Awa ñi ngi leen di ziar bu baax. di am mbégte bu baax ci teewaay teewaay bi ñu fi teew. macha allah wax ni nag euh, le 29 comme noonu nga ko waxee rek. dimanche la muy dimanche. Mhm. incha allah. boo xamante ni euh, bis la ñu bu ñuy waajal. Mhm. boo xam ni bisub sant ku di ki la. Mhm. waaye di ci sargalit Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni li tax ñu di ko def itam mooy euh, doon na jëmm joo xam ni. ni nga ko waxee léegi ci ndaw ñi. amaana ku mel ni man mënoon naa nekk ci leneen. wala mu defi leneen mbaa muy ànd ak ñeneen. waaye ginnaaw yàlla itam euh, fexe na ba convaincre nu ci li nga xam ni ci loolu rek lay dox muy liggéeyal lislaam waaye jaare ko ci tool bi nga xamante ni moom la maamam xàll. Mhm. muy toolu ku tedd Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul. Mhm. ñu di ci yëngu ñun ak ay sunuy moroom. Mhm. waaw ndax itam yemalewu ko ci ñun rek. waaye képp koo xam ni ndaw nga ndax euh, li mbokk mi di wax léegi rek dañu gis ni ndaw ñi dafa am taxawaay bu ama am solo daf leen ci bàyyi xel mhm. ndax dafay wax ni saa boo ma wanee say ndawi tey rek mhm. ma wax la sa ëllëgu euh, say magi ëllëg mhm. nu muy demee sam réew kon nag ñi nga xamante ni dañuy encadrer ndaw ñi di leen jàppale di leen gindi aussi ñooñu jaadu na léeg-léeg itam kenn koo xamante ni dem nga ba yëg loo daawul yëg ci sa bopp itam ka tax nga mel noonu itam nga delloo ko njukkal jubluwaay boobu rek lañ ci am d'abord tàmbalee ko ci ñi nga xam ne nag ñooy sunu ay sunu ay kilifa mhm. di sunu ay wayjur ndax itam lu jeg njaag ñoom ñooy njaag mhm. ñoo nu jur ci faratas yàlla ak sunnas muhammad mhm. yarnu ba tey kilifa yi mën a jote ci ñun def li ñuy def ci ñun itam moo tax d'abord ñoom lan jiital ci li nga xamante ni mooy sant gi ndax ci seen ndigal euh, lan lan ko defee ginnaaw buñ ci amee ndigalul sëriñ bi itam mhm. ndax tey bu nu ni woon tey tey tey na ngeen ko bàyyi itam na mu ko diglee rek noonu lañ koy def mhm. kon lépp lu ñuy def itam te am ci ndigalam rek dañ ci mhm. dolli am yaakaar te xam ni itam sagam ak ñaanam tàbbi na ci rek euh, danañ danañ ci am ndam insha allah di wax ni ngeen ñaanal nu ci bu baax a baax a ndax bis la boo xam ne yéen ñii ñëpp kenn ko ci nekk itam ñi ngi la invité ndax euh, ni nu ko waxee léegi rek euh, ak cant moom la alxuraan wax rek la in shakartum la azidannakum waaw sagam ku cant yokk la nag loolu moo waral baatug cant gi. Mm-hmm. waaw ndax mm-hmm. euh, bis la boo xam ni daal ak cant rek lañ ci jublu. jubluwun mm-hmm. ci leneen. di ci woo waa Thiès gépp. di ci woo itam sunu ay bokk muy waa euh, kër sëñ Abdoulahi Yaqin ga nga xamante ni fa laa jugee. ñëw fii di ci woo képp koo xamante ni ab jullit nga. ak këru diine góomanti bokk. ndax l'islam la nu wax. te l'islam moom yëf yi ñëpp la. waaw mënul ñàkk nag garab ñu ni kat bànqaas bi bànqaas bee waaye lépp moom genn garab gi la. kon bisu ñëpp di bëgg ànd ceeg ñëpp itam képp koo xam ni rek euh, yaa ngi bëggee lislaam yaa ngi wax ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah bis bi sa bis la ñu ngi la ci woo ak teel a ñëw ak ah, teel a ñëw incha allah waaw dimanche ci ngoon la à partir de dix huit heures ndax li tax euh, mooy dañu bëgg mu doon loo xam ne luy teel lay doon hmm. luy teel a tàmbali su ko defee nit ñi mën a teel a wëlbatikuwaat hmm. Hmm. ndax bu ko yàlla dogalee fu nekk ay nit dinañ fa jóge di ñëw moo tax ñu bëgg mu teel a tàmbali mën a teel a ñu mën a teel a yeewi nit ñi guddi mm-hmm. ndax am na nu ñuy guddee rek dafay xaw a guddi mm-hmm. te bu guddee it nit ñi war a xëy liggéeyuwaat mm-hmm. day doon gàllankoor ci ñoom moo tax Thiès képp koo xamante ni allah di fa jóge di ñëw fii oto ya ca xabru sëñ Ablaye lay gaare su ko defee képp koo xam ne fa ngay dugg ji rek ci kàttanu yàlla paas ba ngay kii ñun ñoo ko fàggul waaw yow da ngay barkeelu ci ticket bi rek waaye transport bi moom ñun ñoo ko yoral su ko defee ñëpp rek bokk ko incha ko defee ñu ñu ñu tàmbali bis bi ñu dëgmal jëm ci wane njañ mhm. waaw loolu euh, du ma ci sori waaye sang bee woote loolu mhm. Cheikh Mouhamadou Karam mhm. Mbacké bëggoon naa sa xeli njañ sax waaye comme damaa xaw a leel moo tax mënu mënuma koo am moom nag tànn na bis boo xam ne nee na dina wane ay njañam te ci ci boobu su ci bis boobu euh, dinañ ci woolu xale yi nga xam ne nii yëpp def nañuy njañ ndaxte ba tey ci bëgg euh, won nit ñi ni xale dafa am solo yenn saa yi nga gis ku rasta ñu dëkkal ko fu mu dëkkul yenn ku defi njañ ñu ne dafa bëgg a bon moom nag sang bi ba tey ci mission wu woo xale yi di leen won yoon wi ci yooyu lay dox ba ba ba jamono ji te dañuy rejoindre euh, li bokkal wax léegi nii fàllu wax ko ci sunu sang yooyu nga xamante xale yi rek a leen ñor xale yi leen ñor euh, bu 31 décembre jotee euh, bu dee téeméer dafa ne juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp ay ndaw la doon mm-hmm. moom itam liggéey bu am solo bu am ko ci diine ji ci ndaw ñi waaye itam am taxawaay boo xam ne am na ko ci kër Cheikh El Khadim radiyallahu taala anhu mm-hmm. ku ne xam ne sëñ Modou sëñ Modou Kara li ko ñor rek mooy mm-hmm. mooy jeunesse bi jeunesse bee ko ñor mm-hmm. ndaw ñee ko ñor euh, ci réew mépp nag réew mépp foo dem euh, ay njabootam ay ndaw dong la ñu doon dëgg la yal na ko yàlla yokk dëgëral di topp ci fan baax di ko ñaanal bisam bii yàlla defal ko ci ndam waaw kon nu nga lay ñaanal yàlla defal ci ndam bu kawe sa amiin amiin waaw ci dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam man Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane laa tudd mm-hmm. ci Cheikh Modou Kara laa jébbalu ndeysaan voilà mm-hmm. donc yooyu yëpp mooy wane ni lépp benn la mm-hmm. benn la euh, ci ci ci ci réew mi am na nag beneen beneen xale boo xamee ni euh, balaa ngay wax si xale bi dama bëggoon profité si euh, présence su sëñ Fallou pour jaale benn mbokku taalibeem Ndaama Kara Tunkara waaw ñu ngi ñaan yàlla atte ko ci yërmande allahumma amiin allahumma amiin di ko jaay également wasilaam borom daaru bu baax macha allah macha allah loolu loolu am na am na solo Marianne